bon euh, je me présente Ndiaw Ndiaye la nekk chef de centre de la maison maison de la femme entrepreneur euh, euh, bi nekk fi nga xamante ne mooy Pikine donc entre Cheikh Anta de entre kër Cheikh Anta ak kër Cheikh ci wetu kër mère Fat Sadio Gis mi nga xamante ne mooy faj xale yi donc te làqu foofu la nekk. donc maison de la femme entrepreneur boo ko déggee mooy kër gi nga xamante ne moom mooy tàggat xale yu mooy tàggat jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi donc te defuñu dara euh, ñu fexe bëgg fexe nu ñu leen utalee ñu am ci ci lu ñu jàpp donc euh, di leen offrir di leen maanaam di leen jox ay formation yu bari yoo xamante ne ni war nañ cee mën a yëngu ci seeni kër lu ci mel ni euh, ni ñuy defaree saabu lu ci mel ni nu ñuy defaree eau javel lu ci mel ni. Euh, nu ñu war a mën a defee euh, mbayum euh, noor ci seeni kër maanaam ci table wala ci ci ci ci suuf si donc lu ci mel ni aussi li ñuy wax pâtisserie lu ci mel ni aussi li ñuy wax restauration donc am na aussi li ñuy wax cuub ni ñuy cuube yooyu yëpp ay xeeti formation la xeeti tàggat la yoo xamante ne dañ leen koy defal fii ci fii ci maison de la femme entrepreneur voilà nous nous mën euh, je pense mois donc euh, mes activités ont démarré a mois mais bi ñu fait parce que il il fallait nous nous échantillon échantillons permettre de étudier exactement ce que nous voilà échantillon bi gannaaw euh, agent sur le terrain donc dem ci kër yi nga maison jël foofu euh, enquête jigéen ñi euh, jël ko yóbbu ko au niveau de la direction de l'emploi pour mën a def étude bi xool exactement li ñuy def ndax c'est faisable ou pas donc gannaaw bi ñu paree ci liggéey boobu noonu lañ ñëw nag ñu lancer euh, mission bi maanaam ñu lancer liggéey bi voilà bañ ko boobaak léegi war naa mat ci ñaari ñeer donc actuellement ni ñu ni ñu ñu nekk mën nañ wax ne donc on a on a démarré mën a commencé nañ. pas mal de formation formation yu bari ñi ngi ci euh ag nañ sa sax mën na ne ci ndaw la parce que lu ci melni savonnerie donc ñi bindu won mën nañ ne euh, euh, mën nañ ne 80 yi defal nañ leen euh, formation mën nañ ne 80 yi defal nañ leen formation ba ba sax mën na la jox exemple ci ñi nga xamanteni ñom lañ jëk defal formation en savonnerie ñom commencé nañ produire ba andil ñuko li ñu leen jàngal teg teg lañ ñu indilaat defar ko seen bopp di ko jaayal seen bopp kon wane nañ ñu ne ñoom euh, mën nañ li nga xamante ne jàngal nañ leen ko ba ñu ngi commencé di liggéeyal seen bopp kon nu ñu li suñu objectif mooy autonomisation des femmes ñoom déjà instant bi ñu ngi autonome à travers ñun. lu ci mel ni aussi micro jardinage on a déjà euh, commencé def nañ micro jardinage ci biir donc yaa ko gisal nga ko sa bopp. Euh, am na lu ñu ci def donc am nañ ay vingt vingt femmes yoo xam ne formé nañ leen ci ñoom je pense euh, mokkal nañ ko ñu ngi aussi lu ci mel ni cuture ñaw bi aussi on a sélectionné quarante femmes yoo xamante ne euh, incha allah d'ici lundi dinañ démarrer ci ñun ak en collaboration avec les GIE des jeunes couturières professionnel de Diourbel ñu man cee lim maam Cheikh Ndaw Cheikh Gueye ñooñu ñoo teg benn école bu ñuy woowee école Serigne Saliou Mbacké euh, fële ca marché Perron ñu war faa forme quarante femme yoo xamante ne fii lañ leen jëlee di leen fayal formation euh, six mois yoo xamante ne fii ci buñ génnee ci formation boobu dinañ am seen diplôme dinañ mën a dem ak seen bopp voilà bon dañuy lancer appel jigéen ñëpp ñi nga xamante ne nii. ñoom ñoo tax ñu def ñu tax ñu defal fi lii tey ñoom nañ ñëw à travers kër gi parce que ñoom existence su kër gi ñoom ñoo tax donc ñu ngi leen di lancer appel képp koo xamante ne yaa ngi may gis à travers euh, image yi donc nga ñëw fi nga xamante ne mooy kër Cheikh euh, diggante kër Cheikh la nekk ak Cheikh Anta Pikine voilà donc euh, fa lañ ko implanté boo ñëwee loo bëgg ci explication bu bu affaire yi leerul dinañ la expliquer euh, loo bëgg aussi nañ la ci accompagner jàppale la parce que moo waral existence bi yi nga xamante ne euh, suñu suñu suñu suñu tonton Dame Diop ak son frère monsieur le directeur de l'emploi Pape Modou Fall ñoom ñoo ko fi implanté au niveau de Kër Cheikh muy nag pour njaareem gépp nekkul pour partisan pour affaire de militant ou bien fii amul Dame Diop amul Moustapha Gueye amul euh, Sayed Diop amul Malick Fall mm-hmm. on est là pour tout le monde on est là pour toutes les femmes de la région de Diourbel du département de Diourbel au moins voilà ñi ngi lancé appel à ce que yéen jigéen ñëpp ñu ñëw ñu fréquenté lieu bi nga xamante ne existence am ñoom ñoo tax